chacun y va avec nu mu ko xalaatee nu mu ko gisee nu mu ko yaakaaree donc il y a pas de codification malheureusement ce qui fait que on peut passer du coq à l'âne ce qui fait que des fois même on peut dire des choses sans pour autant aller dans la profondeur xool mbir mi lan la laaj maa ngi déglu ñuy wax euh, réintégration wala application immédiate de la décision de justice non non damay ñëw ci non non c'est, un point parce que le doyen est revenu là je je lui rappelle simplement que cette affaire n'est pas encore définitive il a pas encore de jugement définitif c'est-à-dire tey bu fekkante ne je prends un, un exemple su fekkante woon ne bi juge Ziguinchor bi waxee dañu ko réintégré ñu dem Cour suprême ñu kase ko ñu génnewaat ko ñu delluwaat Dakar ñu réintégré waat ko ñu xaaraat waa Cour suprême combien de fois dugal génne dugal génne war am benn deuxième chose même si l'affaire était définitive pourtant justice moom ne génne leen ko xaaruñu ndegam bu ñu demee fee mën nañ ko dugalaat dañ ko génne automatiquement. xam nga justice kenn la wax ñu génne ko ah non Birame. xam nga wàllum contumace. non non euh, boo mu posé question da nga may déglu xam nga justice kenn la wax ñu génne ko ba mu koy wax boobu on était en période d'ouverture des inscriptions su les listes électorales est-ce que mës nga gis yow Sénégal ñu ubbi liste pour dugal benn nit wala pour génne benn nit. je te pose une question vous aussi journaliste vous avez xam nga mbir mi du question ay liste question de benn cas bu la bu justice ne dañ ko génne woon dañ ko cee war a delloo duñu xaar ouverture juriste yi ñoom ñoo ko wax non non c'est pas vrai mais c'est pas vrai ah ban juriste moo la wax loolu kon juriste yow dans la décision yëpp déggoo nañu ni dans la décision bi nga xam ne gis nga ko muy daw si réseaux sociaux yi est-ce que gis nga le président du tribunal ne nañ ko réintégrer suba yow gis nga ko non xam nga du wax loolu mais buñu nee la effet immédiat non lefe immédiat c'est quoi c'est quoi l'effet immédiat c'est quel est l'effet immédiat ce que mës nga gis ñu ne ubbi nañu list électorale benn jour pour dugal benn nit depuis nga nekk Sénégal bu léegi yow journaliste nga da war aussi gësu xam loolu est-ce que loolu mës na am ñu ne liste bi nañu ko ubbi benn jour pour dugal benn nit tëjaat ko amul fenn ça n'a jamais existé au Sénégal loolu ñu xam droit ak code électoral nekk ci ay experts mën a xamal non man dama la laaj yow de mémoire de parce que c'est il que sur certaines questions bu ñu ci wax ñu gëstu ko dëgg la wala déet est-ce que mës nañoo ubbi liste benn jour en door des moment yi nga xam ne c'est dédié à l'ouverture de listes pour nit ñi inscrire ra radier euh, euh, modifier est-ce que mës nañoo ubbi liste bi benn jour pour dool nit. xam lu ci am solo est que yoon. mus na am musul am est yoon permettre na ko. yoon permettre na ko bu dee yoon permettre na ko bu dee yoon permettre na ko. xam nga loolu moo la amal solo. li xam nga la moo amal solo ñun ñu toog ci li yoon wax. parce que yoon pareegul wax. yow da nga ni est-ce que mës na am mani la man li am solo mooy est-ce que mës na am du solo bi solo bi mooy est-ce que yoon permettre na ko wala yoon permettre. xam nga yoon wax na ko tôt ou tard nañ ci xam. xam nga yoon pareegul wax dama jàpp ne bu ko yoon permettre woon damay dégg toujours nga dumbum naan la loi ne la la là où la loi ne distingue pas. parce que man gisaguma man ci li ma gis muy daw ci réseaux sociaux yi ci jugement bi ñu ne nanu ko dugal suba wala nanu ko dugal dans un délai de. parce que instant yi ñuy waxee instant yi ñuy waxee les listes électorales kenn mënatu koo laal. instant yi ñuy waxee. est-ce que sax les listes kenn mënatu ko laal est-ce que ki ñuy wax nekkul ci liste yi. non mais nekk bu ci nekkoon dinañ ko jox fiche. on verra. non non Birama c'est pas on verra. c'est-à-dire vous êtes journaliste. oui mais écoutez. xam nga nekkuma ci non attendez non oui mais attendez. xam nga débat bi vous avez vous avez tenu benn propos da nga ne est-ce que nekkul ci. ma ne la mais bu ci nekkoon danañ ko jox fiche parce que képp ku ñu jox fiche. yow mënoon nga dem jëli fiche parce que tu es électeur mais ku dul électeur boo demee duñ la jox fiche donc pour nga nekk électeur ou pas c'est parce que tu es dans le fichier électoral. te yow jàpp nga ni tant que révision amul warul kenn waruñu génne waruñu dugal. man loolu laa xam. ok loolu la loolu la laa jàngaa matière électorale parce que dafa am ay moment yoo xam ne c'est le code électoral moo ko définir gis nga booy dawal sa oto tu te réfères ñu nekk ci mine yi code minier douanier yi c'est le code douanier da dégg ñu naan code code de procédure pénale wala code code pénal mais am en matière électorale c'est le code électoral boo xam ne dafa ne bés sàngam ba bés nàngam la ñuy ubbi liste bés nàngam ba bés nàngam lii et cetera donc loolu laa la wax